asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi fas yéene ñëw ak yéen ci xew-xew bu mag bu ñu dëkkmal muy am Darou Mouhty ajjuma ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru octobre di fukki fan ak juróom ci weeru gàmm jumaa ji ngeen gis nii di jumaay daarul mooti Cheikh Mahamad Hawa Balla moo ko tabax tegoon xer wi benn fan ci weeru mai 1966 bi dëkk bi demee ba nga xamante ni xajatuñ ci jumaa ji ñetteelu xalifa borom daaru moo di Serigne Cheikh Khady moo yokk jumaa ji ki nga xamante ni bii mooy juróomeelu xalifa borom daarul mooti di sëriñ Basiru Anta Ñang ginnaaw ba mu ci jotee ndigal ci Serigne Muntaxa Mbakke mu ñaanal ko ci mu fas yéene yeesal taaralaat jumaa ji liggéey boobu nag mu jàpp ko juma jii di ñëw di ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru octobre di fukki fan ak juróom ci weeru gàmmu di bi nga xamante ni ci la borom daarul mooti feeñoo ñu di ko yëgal nag bokki jullit yi bokki taalibe yi te di ci woo ñëpp kon xew-xew baa ngi noonu muy ni ngeen ko gisee coppat goo xamante ni Serigne Bassirou Anta fas na ko yéene ànd ak njabootu borom daarul mooti gépp ngir gën a taaralaat néegub yàlla bii di jumaay Daarul Muhti kon ajjuma ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru octobre di fukki fan ak juróom ci gàmmu di bis bi borom Daaru Muhti feeñoon te Serigne Bassirou Anta Niang di ko màggal at mu jot bis boobu di ajjuma ci la ñuy teg xeer wi ci bu fukki waxtoog benn jotee ci suba di 11 heures kon ñi ngi ciy woo ñëpp te di leen xaar ci pàkk bu tedd bii di Darou Mouhty